aussi ci euh, sénégalais yëpp di ko di ko di ko wax ndax justice bu libre lañ am ndax justice bu transparente la ñu am. jërëjëf Mass euh, bala may kii damay <laughs> rafetlu intervention yi ma fi dégg. notamment Moussa dégg naa ko wax ay olofu Saalum Saalum. moom naan kenn du ko latoo bëgg naa laal ni latoo moom <laughs> naan da kay da kay layal boppam rek. <laughs> voilà mooy genre prétexte. voilà kenn du ko prétexte. je suis sérieux mais euh, mm-hmm. di nga justice. ku ko bëgg comprendre da dellu ci si ce que la définition de l'état mm-hmm. état benn contrat sociale bu ñu teg mm-hmm. bañ ko tegee ñan ñoo ko teg askan wi gannaaw bañ d'accord ni lii mooy suñu territoire limité ko si jawwu jeeg si suuf ceeg si jéeri ci ndox mi mm-hmm. dañoo ñëw taxaw ne nag naka nañuy doxe si naka noonu ñuy doxee nag ci la pouvoir génnee le pouvoir ñan ñooy doxal ñu ni ah yàlla a le pouvoir exécutif le pouvoir législatif mhm. et le pouvoir judiciaire mhm. Mhm. oui ñu ni pouvoir exécutif mooy yor tout ce qui est administration moo tax l'administration dépend de l'exécutif loolu ñun askan wi ñoo ni nii nañ ko bëgg a doxalee nañ jël ñoo xam ne ñoo ñuy dogalal ñoo jël décision si suñu tur lañ koy jëlee ñun ñooy nekk débiteurs yi. Mhm. ñu jël ñeneen muy ñu ni ñii ñoo ñuy votel naka lañu war a doxee muy le pouvoir législatif. ba pare nag ne si ñun dañuy tànn ay nit yoo xam ne nii contrat social boobu ñu teg nga xam ni pacte la ñun ñëpp si war a tënku képp ku ko violé dinañ jël ñoo xam ne ñoo lay àtte nag en toute neutralité. Mhm. loolu mooy le pouvoir judiciaire ba pare ñu jël ay textes wax ne que nii ngay doxee du kenn ku la xoxatal du kenn ku la xoññañal du kenn kuy ñëw dugal loxoom pour wax la ne la defal demal goos nga dem gauche demal droit nga dem droit mhm. te ñooñu noonu rawatina ñi nga xam ne ñoo yor administration bi ak ñi yor législatif mhm. loolu moo tax ñu ne le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi loolu pour nga comprendre un peu état ak justice nan la war a mën a boolee boppam mhm. bañ ci jógee nag dañ ni pouvoir judiciaire boobu na lay doxee ñu ne duñ ñëw rek nekk si yaa ma neex wala ci ay tappale rek ñëw di ay nit da leen di tënk tamit ci benn côté tënk bi waxuñu ko tënk la pour moom ñu bañ leen a moom wala ñu ñu ñu tënk la ñu def ba ñu def seen liggéey mais dañ leen ne lii mooy seen code. Mm-hmm. loi bi nee na bala nga àtte nit ci nangam nii nga koy jaarale bala nga àtte nit ci nangam nee nga koy jaarale te bis boo leen dee bay àtte da àtte ak seen aqulaayu taalaa si waat bi ñu leen tegal ak seen intime conviction ngeen xam li mais xam nga fan mooy problème bi. fuy problème bi. d' abord ya texte yi ñu jël Moussa wax na ko léegi maanaam dafa am fu administration bi di tegee loxo justice loolu mooy parquet bi parce que parquet bi dafa dépendre directement ci exécutif bi dañu le procureur de la république day rendre compte wala reçoit des instructions du procureur général le procureur général reçoit directement ces instructions du ministre de la justice kan moo fi teg ministre de la justice le ministre de la justice ñemee naa jël acte wala posé benn mbir ci loo xam ne le président de la République le n'a pas donné son feu vert loolu foofu benn yoon bu ñu tënkee justice la encore une fois ma rappelé ne que la justice ne peut pas être corrompue dama koy fàttali toog naa ne la justice n'est pas corrompue parce que la mm-hmm. justice c'est un secteur par contre y dans la justice des acteurs ñoo xamante ni des fois mm-hmm. bon bu li ñu naan ba nit ñi di gàmm ñenn ñi di mm-hmm. raasi démb <laughs> am na si ñoo xam ne quand les gens travaillent honnêtement consciencieusement avec un, le professionnalisme qui s'y est mm-hmm. am na si ñoo xam ne il traîne les pieds te loolu c'est la vérité et puis c'est ce pas le propre de la justice ça existe partout partout dans les autres secteurs mm-hmm. Mm-hmm. da dem douane mm-hmm. nga dégg fa nga dem police dem gendarmerie dem feneen dem administration territoriale di si dégg loo xam ne ni mais lu gën a yéeme sax li nga dégg biir justice bokkul ba léegi ah ba tey bokkul parce que fii parce que justice aussi dañuy xañ nit ki euh, euh, mu nekk ci biir gi yow yaa ngi ci liberté voilà yaa ngi mais y la justice administrative. Mmh. mais justice administrative est-ce que xam nga ci préfet administration la commencé. absolument le préfet est d'abord un juge. Mhm. day jël at nit ki ñëw justiciable ñëw déposer acte nekk censurer sa acte bi mu bañ wala mu nangu. Mhm. bu ci d'accord yow nga dem nag mbaxana doonee benn. kon ñoom tamit dañuy def œuvre de justice. absolument am na la justice sociale. am na justice beneen beneen benn si fànn yu bëri mais li si am solo rek mooy lan moo ko tax a jóg mooy askan wi. seen nekkin mën a ñoŋ ñoom ñëpp ñu mën a sentir en sécurité wu si biir dëkk bi mhm. loolu rek moo ko tax a jóg mhm. que muy administration bi que muy pouvoir judiciaire bi que muy feneen ak feneen ak feneen que muy police ak ëpp que muy gendarmerie loolu yëpp moo tax justice la d'abord mhm. maanaam benn vertu la boo xam ñëpp a koy war a prôné te ku ci nekk fa nga nekk si sa office si sa statut ak wala sa posture loolu nga war a mën a doxal ma ñëw ci texte yi d'abord avant may ñëw ci pratique bi xam nga dafa am lu ko tëggee loo xam ne tëgg boo xam te nii toujours pouvoir exécutif bi mu ngi am l'œil sur le fonctionnement de la justice et des fois sax day weñ loxo te naa la si naa si ñëw. ah bon. je parle sous le contrôle de Moussa Sarr. Mm. est ce xam nga avant les réformes de de deux mille vingt et un ou de deux mille vingt tout ce qui est détention en matière délictuelle en matière de délit la durée ne pouvait pas dépasser six mois. Mm-hmm. c'est ça dépôt. c'était la règle. Mm-hmm. il n'y avait pas d'exception sauf en matière de détournement de deniers 627. c'est ça voilà. 6 mhm. mois bu jotee sa enquête jeexul notifié la ordonnance de ñibbi sa kër. mais gars yi dem nañ ba pour gérer des affaires purement politiques dem nañ ba andi ay dispositions yoo xam te nii maintenant ngay affaire simple simple délit mu am un traitement criminel. Mhm. est-ce que xam nga am na ci affaire yoo xam am na texte yoo xam bu ñu ko visé 255 et suivant ak 139 si je ne me trompe des c'est à partir de 55 à 100 à 100 et 255 donc c'est 56 articles dans le code pénal mm-hmm. où lorsque le procureur requiert sur la base de 139 le mandat de dépôt da ngay dem. le juge est lié foofu ma ñëw ne nag ne xam nga fii xam nga fii dañuy. problème de texte yi maanaam xam nga moom sànq dafa rappelé ne. Mm-hmm. dafa am pouvoir politique fu mu téye justice. Mm-hmm. par le parquet par le biais du parquet. mais des fois dafa am foofu da koy tënk justice au niveau du cabinet que li muy wax nii. c'est le juge d'instruction qui est interpellé bu demee ba nga xam ne danaan procureur moo ma sa moo bind lii moo tax mënumaa def neneen lu mu bëgg kooku fan la moo may boppam te loolu texte la. Mm, absolument texte moo ko bind. Mm-hmm. te texte yooyu dañ ko war a xoolaat. Mm-hmm. beneen bi mooy. Mm-hmm. imaginez ñu ni c'est le juge qui est le gardien des libertés au Sénégal comme en France comme partout ailleurs d'ailleurs c'est le juge qui est le gardien de libertés par le procureur de la République. mais au Sénégal procureur mën naa yóbbu nit kaso. absolument bu ko neexee mu dem ba si biir su rocc ko yóbbu génn ko mu ñibbi te procureur met des poursuites ko donc c' l' administration. Mhm. kon le pouvoir exécutif mën na yóbbu nit kaso. loolu benn la nee naa la juge d' tey jii même bu yóbboo nit kaso mu dem ba sa biir gannaaw moo nekk la gardien des libertés. Mhm. texte yi si ni ko bindee procureur bu nee d' ci. juge bi dans bu bàyyee juge d' instruction bu bàyyee mhm. dañ naan kaan delloo ba xam ndax kooku day toogaat xaar kan moo ko fa téye procureur moo ko fa téye procureur mm-hmm. fa téye te loolu c'est problème et ñun on a beau chanter les de la justice française mm-hmm. mais en France ça n'existe pas ah, en France bu juge d'instruction bàyyi même bu procureur dafay appel nit day génn bu bu la juridiction d'appel statué ñu gis dafa delluwaat ñu dem jëliwaat ko mu delluwaat mm-hmm. mais mais mais problème boobu lan moo ko indi non dama ne yaa ngi wax tax taxi yi mooy taxi yi d'accord mais les sénégalais veulent comprendre parce que gis nga aussi fu ñuy wax sénégalais loolu dinaa si ñëw waaw non dama loolu mooy sama deuxième point balaa ngay jàll foog mu leer foog mu leer parce que aussi bu ñu toogee sénégalais yi damay bëgg détail bu ñu indi nañ ko leeral ba mu leer ci sénégalais yi juge bi yan àq ak yan yelleef la mën a am ci dossier parce que dernier mot bi bu ñu xool mais juge bi moo war a moo war a wax ne moom day nang mais lu ci bëri procureur la ñu gis ne ci moom lay jugee. parce que dañ ko jox ay super pouvoir moom laa la wax ne la dafa am juge boo xam ne si am na si côté boo xam ne amul problème am na liberté am mën na ñëw wéet ak boppam neen d'accord ma ak li wax damay bàyyi mais dama ne bu fekkee dañ ne texte moo la tënk le juge da naan je ne peux pas faire autrement la loi te moom il ne peut pas se reprocher une violation de la loi parce que il est soumis à l'autorité de la moom laa mën a teg si talool assemblée nationale moo ko voté c'est pas que ñu ngi fal di voté ay loi di gëmm ñii di tàccu xamuñu li ngay voté dafay am conséquence yow si sa patrimoine ak si sa intimité ak si sa vie privée day am patrimoine si sa ëllëg am am patrimoine sa njaboot mhm. pare gu ma pour wax na ne texte yi des nu ñu ko tënkee mhm. loolu problème bu rëy la beneen problème est-ce que xam nga waxoon xam fii dama ne la le mu jël décision le procureur fexe ba suspendre les effets de cette décision. Mm-hmm. bu jëm ci wàllu ñu bàyyi nit mu génn kaso. mais y' a pire encore te loolu d' ma ci. y' a pire. la chambre d' xam nga bii yoon du benn ñetti nit. <coughs> comme ni tribunal di composé wu noonu lay composé wu. chambre d' accusation ñett président bi day yéeg ñaari conseillers mi yéeg. chambre d' dañuy jël audience greffier bi toog procureur général toog wala ki ko fa représenté. mais bu chambre d'accusation jëlee arrêt encore que de ordonnance arrêt lay jël parce que ñetti nit a ko jël. Mhm. et puis cour d'appel la. procureur bu nee d'accord day def pourvoi en cassation boobu les effets sont suspendus même bu fekkee dañoo bàyyi nit ki mu war a génne. c'est un problème. ñetti nit jël décision kenn nit suspendre ko. te loolu tamit am na en matière de flagrant délit de Moussa Sarr. c'est toujours la toute du parquet. du du parquet jël parquet boo xam jox ko ay super pouvoir nga ñëw ci pratique bi. xam nga nit perception bi ñu am justice kan moo ko am c' est l' la société moo am perception boobu. Mhm. nit ñi xam nañ texte yëpp. c' vrai que am na si ñoo xam ne ils ne sont pas des initiés du droit. Absolument. mais chaque jour mhm. ne ils ne sont pas n' ont pas avocat ou magistrat. Mhm. da ngay gis ñoo xam c' est des juristes. ay journalistes yoo xam def nañ ay investigation xool nañ texte yi wax ko Sénégalais yi. traduire ko en wolof ñu comprendre ko. ok ñëw ci pratique bi. c'est là où se trouve le scandale pratique bi mooy lan xam nga léegi kii Moussa dafa wax léegi lim ay dossiers. Mhm. dañoo dem ba dans la pratique dañoo jël soo ko def ko deux catégories de dossiers ce qu'on appelle des dossiers signalés ak les dossiers ordinaires dossiers ordinaire yi daanaka ñorul ñenn ñi mais affaire signalée yi moo leen ñor. xam nga lan muy affaire signalée. mbir moo xamee ne bu ne. dossier ordinaire ak dossier signalé. ak dossier signalé <laughs> maanaam mbir moo xam dañ naan yaa ngi bàyyi xel état bi bëtam da koy si teg am na nu mu ko siy gisee. Mhm. kon ña seq dossier bi ñu ngi bàyyi xel pouvoir politique bi naka lay gisee traitement bi. ok loolu mooy affaire signalé. et pour la plupart du temps dama lay jox exemple bu ndaw ay dossiers yu ñàkkoon fayda dossiers yoo xam amul woon solo Moussa yàgg naa plaider ay dossiers yoo xam dañ naa la. participation à un rassemblement à une à une manifestation non autorisée la. trouble à l'ordre public eh, attroupement provocation d'un attroupement. Mhm. dossier bi day ñëw jàll flagrant délit jàll. gis mhm. ne bon c'est pas wala bu am na loo ci def loo xam jëm na ci yàq ñu may la benn peine ferme nga ñibbi sa kër. Mhm. mais xoolal léegi sa tendance en information judiciaire des délits comme ça de jël ñëw ramasser ay nit ñuy naan café nekk à bord manifestation rek nga ñëw ramasser leen. yóbbu leen yóbbu leen information judiciaire parce que yaa ngi gis ne. Mhm. peut-être si benn camp lañ bokk te camp boobu dañoo commencé di di ñu sonal ci côté bi wala ci côté bële. Mhm. nga ne xaaral ma excusez du terme am amet leen benn 6 mois. Mhm. après ñu génne avant 6 mois di jeex sax mën nga leen may liberté provisoire mais. suspendre toujours l'épée de Damoclès par le canal d'un contrôle judiciaire contrôle dootoo waxati dootoo defati jamono ji ah. bëri na trop ko ko wax ba nga ñëwee si affaire signalée joxe si ay cas damay jox exemple bu ndaw Bamba Fall le maire de la Médina et sax xam nga am na une procédure qui est pendante devant le doyen des juges d'instruction et qui n'a jamais connu une issue. Bamba Fall mu nga fa. Mhm. yóbbu nañ ko fi ay kaso. est que dossier boobu avancé na ba mu si génnee kaso ba tey est que dégg ñu àtte nañ ko. Mhm, kenn déggatu ci dara lan moo tax. Mhm. est-ce que da nga dégg ne Bamba Fall dafa nekk opposition bu nekkoon opposition kenn waxatu tentative d'assassinat <laughs> lañ ko toppee woon c'est grave signé de la main d'un de des mm-hmm. de parti d'un boo xam ne ni paix à son âme mm-hmm. tey jii gisoo ñu waxati si parce que am na foofu mu far léegi nga ñëw xool ñi nga xam ne faru ñoom ñooñu seen dossier ana ban traitement la ak ban célébrité la am mm-hmm. moo tax ma la juste le citoyen le simple citoyen bi ngeen di xeeb dafay ñëw ne di joxe atteem moom tamit di xool ci façon bi ñu koy doxalee nga ñëw gis ne affaire Khalifa Sall mais mënoon na génn kaso sax mu dem ay ati ati ati at atte bi du jeex parce que am na ñeneen ñoo xam ne ni concerné leen ñu nekkoon fii ci administration publique. ñu jiiñoon leen lu xaw a mel noonu. Mhm. mais dossier bi def na 5 ans. àtte mhm. bi jeexul. pour cour sax statué gu ci. Mhm. non xaaral pareegu ma. ma rek damay parce <laughs> ma yi nga xamante ni dafa am ñoo xam ne daf leen a concerné. <laughs> ñu ne faruñu opposition ñu ngi far ci côté pouvoir bi benn nga njëkk dégg ñu ni la am na ay rapport yoo xam ñu ngi si taabalu ka war a toppee. Mhm. kooku noonu des fois sax attaqué ko da nga koy tooñ parce que procureur am na ko wax léegi ne ay ordre lay xaar tey rapport off nag bu ñëwee si table du procureur te mhm. ministre jox ko ci ordre wala procureur général joxul ministre euh, joxu ko ci ordre mais mënta engagé des poursuites mënut a engagé des poursuites parce que texte yi ñoo wax loolu. Mhm. day xaar autorité hiérarchique jox ko ordre. nga gis ni ñi mu concerné ñoom ñu mel ni da far ci camp bale seen i dossier mu ngi ñu teg si suuf léegi ban perception la citoyen bi mën a am si justice mhm. léegi day delluwaat lépp si ñun mhm. d'abord texte yi nañ ko xoolaat mhm. bu ñu jël chaque jour ma wax ko di légiférer au moindre fait divers ok nañu bàyyi lii am na xaw naa indi une certaine clameur publique am na ci jiixi jaax am na si xelu nit ñi nga ne non non je modifier une disposition textuelle boo xam ne. par mhm. exemple 60 ans mu ngi fi te kenn laalu ko. kenn laalu exemple bu ndaw. Mhm. sans faire de discrimination wala ma def de de. de la stigmatisation. Mhm. gis la criminalisation de la la loi criminalisant le viol. lan moo ko indi benn xale bu jigéen paix à son âme. c'est ma cliente. voilà. avec tout le respect que voilà paix à son de Tamba de Tamba si si coow loolu lañ jóge si coow loolu lañ jóge criminalisé waxuma ne d'accord ma si criminalisation bi de mais pourquoi ñu xaar loolu am ñu koy doog a def te benn fee kese la ñu koy doog def ok c'est vrai que am nañu ko agité merci maître merci. ma ma jeexal jërëjëf. ma jeexal trois wax noonu xaaral damay jeexal ci côté boobu rek. nga daane. a nga foofu tamit dama koy arrêté. écoutez y a un problème. Mm-hmm. et sax xam nga am na citoyen xam ne nii am na si justice boo xam ne boo leen fa yóbboo amuñu droit à à procédure d'appel amuñu ko la CREI. CREI amoo possibilité nga def appel ñu àtte war la boo d'accordul ci décision bi. Mhm. mais pire encore te loolu c'est une loi qui est là de de la charge de la preuve. Mhm. mais loolu ça rompt même. Mhm. l'équilibre de la justice. le renversement de la charge de la preuve maanaam yow man maa lay tuumaal mais yow yaay yow yaay teggil sa bopp tuuma man man mi la tuumaal du man indil benn firnde. l'enrichissement illicite. te bu ne ma dañ laa may. maanaam tey boo ma ne woon massif. voilà maas dafa sif diw. non kon man maa war a uti preuve pour pour wane ne sif. non xam nga la. alal la mhm. yi fi nga amee jubul. Mhm. te bul taxaw ne dañ la koo may. taxaw ne cadeau la. Mhm. bul taxaw ne nangam ne la un mois. un mois pour nga gannaaw man am un an. une année entière. yow ba pare mu ne la am nga un mois pour justifier na milliard bi nga am fi nga amee jub na te bu ñu wax nañ la ko may loolu problème de texte la absolument